sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sukur wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sukur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliimaa silaali ila aljannati baaqin tawassaat wa kulli wa maali zaana xaamin musassisu mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana Sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ginnaaw xaal ja suuna la fa njëkk bayaat suuna soosee ba ñu ko fa bayee dañ ko fa jaag maanaam jal ba muy waaja tawaat mu door ko bojjulu sëriñ tuuba xaadalawu laaxu maxtaaralahu ba mu koy bojjulu soxna faati kanni la woo taawub sëriñ mamor jaara radiyallahu taala ak soxna faati kura ñooña la jiitaloon ñuy bojj dugub ja sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara la ko dana leen fajaag ba nekkoon laa bëgg ñu bojj ko te beraat ko fa ba ñu ko bojjee ber ko foofee mu ne leen nattal leen ma ko ñu natt ko muy ñetti mata ay bërigo lay tollool am na ñu xam loolu lim bi ci ay bërigo ak ay àndaar ay kilo la am nañu ko xam sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu wax ne ruux yi ma dénkanteeg saa borom subhaanahu wa taala noonu la toll lu toll noonu saa su fi dikkee ñu taxañ asamaan seek suuf si wér na wallaahu aalam sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal